nag moom mooy euh, yàq añ bi <laughs> da nga mën togg. togguma ko de damay <laughs> yàq. waaw ah, maa koy parce que jànk bi dafa dem. donc euh, boo leen di euh, tourner aussi liggéey bi yamul ci tournage kese da ngeen di def aussi liggéeyu liggéeyu kër dafa mel ni. waaw ah daa ñoo fi dëkk kay wax dëgg yàlla foo ñu des fois def yi mënta ñàkk day mel ni sunu kër lañ nekk rek mm-hmm. waaw. tey lan lan mooy menu bi tey. tey daa mel ceebu yàpp la ay nanu baal. waaw ak soosu. Fanta da nga mel ku bëgg lekk. waaw <laughs> sama am dépense de su dul loolu damay jooy. waaw su ma jëkk. ma ma maar mbaa mbaa mbaa dépense am doy na. doyul de am day jig saay changé kooku kooku dama yàlla mësul si moom. maa tay maa tay ah, ah. nama waaru ba génne ah. lu ko nag. dafa war a bàyyi bu teewoon kii du sa mbooloo oh. xool ñoo tay. Oh. <laughs> alors toujours euh, ci biir euh, kër gi famille sénégalaise tey yaay ñoom la seet si documentaire wala reportage yu inédit maa jàkkaarloo ak euh, ñaareel ak ñetteel Fanta Seydi ak Alima ñoom ñaar ñu def face to face salaamaaleykum Fanta <laughs> Alima ni que ne yéen ñaar naturellement ngeen mel ci ci ci série bi aussi noonu ngeen mel même boo leen tourné wul gis ngeen ni ngeen jege Anthony vous êtes complice na ngeen def ziar naa leen. delloo ziar ñu ngi lay bu baax a baax. <laughs> gis nga ne nii lañ mel mbaa yaa si jàmm yow. ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah nuyu nañ la di leen euh, ziar yéen ñëpp. Mm-hmm. gis nga nii lañ mel maa ngi moom benn lañ. Mm-hmm. Euh, ginnaaw film bi sax moo gën a neexati. ni ngeen koy dundee quoi waaw nii lañ koy dundee. alors super donc dañuy ñëw ci ku ci nekk Fanta ci yow lay commencé euh, ci présentation bi sa tur dëgg-dëgg Fanta Seri. Diary Sow jaari Sow <laughs> Sow la Ardo alors mën nga dikkaat ak ñun un ci sa juddu foo juddoo foo màggee foo yaroo. bon man Grand Médine laa dëkk. Mm-hmm. pour ñu koy laajte Dakar Grand Médine. foofu laa juddoo foofu laa yaroo ba nii ba tey maa ngi fa dëkk waaw. nga quoi. bu baax booy zeem <laughs> alors ñu euh, ràññee la loolu ci euh, série bi les familles euh, sénégalaises. Mm-hmm. sa début ak théâtre ak passion la boo yàgg am depuis nga nekk xale. waaw passion la ñuy commencé di kon ci Pikini production ba tey maa fa sax kon ko ñoom dañoo bëggante <laughs> voilà dara lépp lépp yomb daal macha allah ba tey ñu ngi liggéey mhm. voilà. alors euh, série bi est-ce que bi nga ciy dugg euh, loo yaakaaroon la que ni buzz bi succès bi dina toll fii parce que aujourd'hui euh, tey euh, gis nañ succès bi nga xamante ne am ngeen ko tey Sénégal boo waxee téléfilm actuellement ci daw forcément da ngay citer famille sénégalaise naka ngay dundee succès boobu. waa sant yàlla rek ak wàccee liggéey la li ñu liggéey moom moo feeñ nii liggéey nañ liggéey bu métti macha allah mais aussi euh, xam ñi ngi sant yàlla daal. ñu ndax dara jarul yéeg euh, di aj foo xam ne egg fa ndax macha allah ñi ñu fi jiitu ñu bëri doon defoon nañ fi série yu yu graaw te. léegi daal kenn déggatu nañ wàccee suñu bopp rek. xam ni après day jàll <laughs> day xaar yeneen projet incha allah. <laughs> d' nga jàkkaarloo ak sa ak sa xarit. Euh, <laughs> sa complice Alima. alors euh, même question bi euh, qu' que ça te tey nga participer ci série bi mu am succès et puis nga ciy jouer rôle lu wujju donc loolu lay xam naa ne nañu ko taanee bu baax mais d' abord le succès ak li nga xamante ne moom mooy portée bi série bi am fii ci Sénégal. waaw succès bi neex na ça fait plaisir mais comme ni ko Fanta dal jël ko ak euh, modestie xam ni lii du dara après mm-hmm. day jeex rek mm-hmm. waaw. yaay fa yaay fa faal nga taa dama gis euh, ci internet bi vidéo woon ndeysaan euh, nga jooy loolu tamit bëgg naa tamit ñu taxaw ci tuuti parce que bu ñu leen gisee ci série ak ni ngeen di solo ni ngeen di waxee on dirait des filles soxo soxo mais <laughs> ndekete ay taalibe ay yaay faal laa jàkkaarloo la. sa diggante ak Karim. man nag mën naa yaay faal la parce que yaay faal moom mooy. ëmb na lépp bien mhm. vrai que comme li ma waxoon du ma murit ñu naan xanaa peut-être xaw ma lan mooy murit mais dama bëgg a wax juste que rek bokkuma foofu taalibe Cheikh laa taalibe sëñ Babacar Si mais yàlla dafa dogal ne dama bëgg sëñ Abdou Karim loolu mënu ci dara dama ko bëgg sama biir xol vraiment Ah, super alors euh, tey ci série bi ngeen seq ko aussi ak seen yeneen naataango jigéen mais dañu gis que ne yéen ñaar euh, ci biir série bi euh, da ngeen am complicité boo xamante ni ñaareel ak ñetteel te généralement bariwul lu ñu koy gis ci ci ci famille sénégalaise yi dañuy gis que ni ku ci nekk da ngay def da ngay rivaliser ak sa morom mais par contre yéen gisuñu ngeen incarné rôle boobu ban message wala lan ngeen bëgg a jàngale ci ci ci ci rôle bi nga xamante ni moom ngeen di jouer ak yéen ñaar seen comportement bi ngeen am ci biir <laughs> Eh, doo doo doo doo yow doo kuy këpp sa sa sa wujju eh, ndax ndax bu tàng wala diwlin bu tàng. déedéet parce que fant bi muy dugg si dafa xam nekk ci kër gi déjà. Mm-hmm. ño nekkul dafa jógee noonu ci mbedd bi rek ñëw dafa liggéeyee ba yàlla def borom kër gi jël ko soxna. Mm-hmm. de ce dafa xam kër gi ni muy doxee. Mm-hmm. kenn daal moo physique ñëpp xam nañ ko mooy soxna Mata ah, waaw ma jël sama xarit bu baax bi. lonk ko parce que moom tubaab la. du ko defee ma koy jéem a dimbali tuuti. <laughs> <laughs> loolu la te aussi euh, wuccu jarul xeex di xëppante ay dawlin boo ko boo ko wërsëg la rek dañ naan bu yàlla dogalee da ngay wujje moom ala kulli al mu ñëw rek xam ni loolu la yàlla joxe nga gérer ko xam ni munoo wax bu doo wujjee mhm. na nga sekk ak sa wujju jaam bu dee mënoo sekk ak sa wujju jaam dëgg yàlla toogal jaru xeex jaru xëppante diwlin wala ay jamante yooyu jaru ko si. jaru ko ci quoi euh, coalition ànd xeex soxna Bador mën nañu ko xaar ak euh, ay séquences yu gën a tàng parce que gis naa ni que ni sonal na leen trop mais yéen ñaar aussi def ngeen ay pexe yu nekk pour gi ko mais benn antoogu ci. a saf euh, pour xeex ki nga moom mooy soxna Bador bi ah, <laughs> naka du yomb de moo ngi ñëw. ne naka soxna Bador duñ ko may dara dara dara laa rabbi ndax mm. foofu daal ñu dóor ko muy bëgg a gi ndax mu may suñu jëkkër ji jàmm mm-hmm. voilà <laughs> baroom sonal na la aliment sonal na ma torop man la gën a sonal mm-hmm. parce que xam na ni am aliment du xeex du xuloo benn tubaab la xam nga rek moom xamul problème ku mel ne Fanta sax des fois moo moo may jàppale mooy fippu di xaw a defante ak moom mais melu ma noonu parce que bu ma demee ba jàpp ni que rek dama dugg ci sëyu polygame war naa mën a accepter mm-hmm. wujjee bañ def ni moom ma xool ki nga xamante ni maag moom mën nañoo def mhm. sekki nañ jàmm ak suñu aawa yaay ñu ànd rek sëy sëy bi moom ñu bàyyi ko mu guerre geer bi ñu bàyyi ko mu guerre guerre bi alors là ah, dans la est-ce que vous êtes prêt euh, euh, li nga xamante ni moom mooy polygamie parce que loolu aussi euh, question la boo xamante ne gis naa Fanta du mooyu <laughs> Fanta am nga jëkkër ma ne noo tudd yow am nga jëkkër am am nga jëkkër yow am da nga bëgg problème <laughs> am ak jëkkër moo <laughs> non amaguma nag donc vous êtes euh, yéen ñaar ñëpp célibataire ngeen. waaw mais est ce que dans la dans la vraie vie Fanta. est ce mhm. que pare nga pour wujje. man lu ma yàlla indi rek ma jël bu soobee yàlla. ragaloo wujj. ma ne lu ma yàlla indil ma jël. mais ñeme nga ko wala ragaloo ko la question directe. déggoo ma xanaa. ah, uh-huh. ah mani. Ah. lu ma yàlla indil ma jël. <laughs> borom lu la gënal. déggoo ma li ma li ma yàlla indil ma <laughs> la yàlla euh, indil nga jël ak li nga xamante ne tey boo toogee au à l'intérieur de di ngay toog di ñaan nga ne yàlla ma yàlla may ma doon aaw wala yàlla ma yàlla may ma wujjee man ngay ñaan. am da ñu lay fay man ma lu ma yàlla indil ma jël. <laughs> da nga ragal da nga ragal wujjee yow jàpp naa la <laughs> ñeme woo ko Alima. non man moom franchement bu ma sañoon du ma wujjee mhm. mais tamit. bu ñu yàlla indilee jëkkër joo xam dafa am jabar ba pare ñu xam ne kii mooy suñu jëkkër dañuy dem sëy mais man moom bu ma sañoon. Mhm. man kese man doom du ma wujjee franchement. ak réew jigéen ñi ni ñu bare. waaw xale jigéen ñi bëri nañu yàlla doon ñetteel <laughs> ñaanal ko kon moom tamit yàlla yàlla doon ñeenteel ñeenteel wala takkoo. takkoo mhm. ngay am yow. Mhm. wujjee moom franchement bëgguma ko. bëgguma ko mais bu ko yàlla indee tamit ñu xam ne loolu moo fi sës loolu moo fi nekk. mais lan ngeen lan ngeen ragal. parce que boo xoolee rek famille sénégalaise li ñuy wane lu nekk boo amee wujj bu mel ne euh, soxna Batoor. Mhm. loolu sëy boobu jarul toog sëy boobu neexul ndax doo nekk si jàmm. Mhm. bu dee nag yow ak sa jëkkër kese la loolu mën nga ko gérer. Mhm. mais boo amee ku doy waar moom day metti te xam nga rek sama genre gi comme man. li nekk li may joué ci film bi dafa xaw a nekk si man. affaire de defante nekku ci man. wujjante sëriñante bi xam nga teg ay plan di xalaat xalaat bu metti boobu je préfère xalaat ko ci sama avenir ak liggéey lu may may xaalis. ok mais du ko xalaat pour defante wala yàq doom aadama. talu loo wujjee. talu ko de. yàlla ma yàlla may ku amul jabar. <laughs> aw point. kese <laughs> yow tamit su <laughs> fi ñuy jeexalee eh, léegi dañu gis que ni xale jigéen euh, yu ci bari. Euh, tey dañuy rêver def li nga xamante moom mooy euh, téléfilm euh, mu nekk un métier boo xamante c'est très jigéen ñi bëgg nañu ko ba mu jaral leen sax lu ne yenn saa ñu dégg ci aussi ay histoire yu doy waar yoo xamante dañu koy dund rien que pour siiw donc yéen ñi nga xamante tey yàlla def na tey ngeen nekk ci position boobu dund ko tey avantage yi boo leen ko mënee listé lan la ak ban conseil ngeen di jox aussi xale jigéen yi nga xamante ne gis nga milieu bi ku ci dugg pour caaxaan si ah. yaay sonn jigéen dong mooy perte góor amul lu muy perte nit ñi nag dinañ wax ni artistes yi dañoo yomb wala lu ne la ñuy dégg waaye bu soobee borom bi ñaanuñu yàlla benn yoon ñuy toog ñu ne jaari saw lii dégg nañ ko si lii walla dégg nañ ko si leen liggéey lañ ko jàppee comme liggéey yëpp mm-hmm. euh, ndax juguñu suñu kër yi pour dem tournage di nga fa nekk tournage ay un mois presque. Mhm. tëju si benn kër. Mhm. liggéey doog mooñ ñu fi indi te un mois boobu dinga nga ci dégg lu nekk jaari saw dafa dem taxawaalu ci war taxawaalu wuñu mhm. ku ñuy jéem a dugal ci yenn yi di ñu dégg man moom sama jikko nëbbu ma ko man dañ naan kii jikko góor la yor. kafu ma si réewu ma si. non damay xeex parce que foowu ma foowaalewu ma bu ma kenn dugal ci yooyu liggéey moom ma tax a jug point su lu dul liggéey ku ma wàcc caaxaan di nga ma dégg te ñëpp ñu siy dugg pour foo seen bopp la ñuy sonal donc mm-hmm. jigéen bu jugul pour liggéey yaa ngi si lu la neex ku fi dugg nag pour siiw parce que da nga bëgg liberté da ngay sonal sa bopp ndax yàgg-yàgg di nga toog ndax mm-hmm. carrière jigéen yàggul mm-hmm. jigéen ni lu ma leen di conseil nañu liggéey amal seen bopp bañ a yaakaar ci kenn bañ a jàpp tele bii nii dafay law mën ta nekk di nga mës a toog casé wu te lépp loo def di nga ko regretter waaw ku nekk daal na nga def loo xam ne mooy daal sa xel. d'accord lu ci nekk comme avantage loo xamante ne tey am nga ko à travers euh, la série. lu mu la defal euh, bunt yi dina ubbeeku li ngay lijjante peut-être dina gën a yomb. Mm-hmm. boo demee ci genre papier benn boo demee affaire dina yomb daal. affaire lu bëri dina yomb mu yomb mu yomb. voilà dina yomb waaw. affaire du metti daal mais mm-hmm. sans dépense ni nga koy jëlee parce que ñoom dina koy ubbil bunt yi pour am lenn pour am benn affaire. loo xam dina ñëw ci ñoom. moytu la daal. donc xale jigéen ñu moytu bu baax a baax ah. voilà nañu moytu. Alima euh, yan jafe-jafe nga ciy jot a rencontré euh, on sait que c'est pas facile nga def carrière ba yegg si fi nga yegg tey xam naa ni yoon bi metti woon na ci li passé mais li nga xamante moo des moo nekk ci kanam moo ëpp ana ban conseil aujourd'hui tey ngay joxe ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale jigéen ñi bëgg a def loolu mais aussi ci jaar-jaar bi nga fàttali rek lu jafe ban jafe-jafe nga tey boo koy fàttaliku euh, dund nga ko ci milieu art bi. man loolu mën naa wax ni sax du si millier art bi parce que samay début la woon benn pub bu ma waroon def. Mhm. ak benn société. mais ki yoroon projet bi daf ma wax ni que yaa yaa yow lañ tànn si casting bi. Mhm. mu euh, wax ma ñëwal sama bureau et ma dem pour signer suñu contrat mais daf ni ma balaa ma lay signer contrat bi da ngay nekk ak man ma refuser ko dem. kii sax mos naa ko nettali ndax nag kooku dafa demaat euh, ba seetaan ma famille sénégalaise contacté waat ma ci beneen affaire fay ma sama xaalis ma dem. ma ne ko kii ma woodee maa moom mos nañoo jaar fii affaire yooyu noonu ma doon wax ay proposition ma bañ dem wax ko sama yaay mu ni ma bàyyil mais li jëm ci affaire de série yi mannequinat bi ma def yooyu noonu mosuma si am benn proposition bu bu kii. donc euh, donc tu affirmes que ni loolu noonu aussi lu existé la may ay promotion canapé wala proposition yu indécente yoo xamante ni góor ñi mm-hmm. dañu koy def xale jigéen ñi nekk ci milieu bi. si am na te loolu ba ba ma koy def maa ngi am 16 ans bañ ma koy wax kon xam nga ni kooku amul fit dem di def loolu ba tey jii ni sax aw ma fit dem di def loolu man moom yor naa jikko boo xamante ni loo ma nar a jox ci chantage moom ma bàyyi ko fa. Mm-hmm. dem alalu àdduna jaralu ma ko. Mm-hmm. sama réputation aussi bëgguma lu ko yàq kon duma ko def. Mm-hmm. Euh, message message bi tey lan lay doon ci sa rakk yi ak euh, ñi nga xamante ni euh, yéen a bokk génération aujourd'hui yu rêvé tey nekk comme Alima. lu ñu ciy dugg rek ñu dugg ci par passion ak def ko liggéey parce que ku ci dugg pour siiw siiw yàggul ku ci dugg pour xaalis tamit liñ lay fay rek nga ci mën a jëriñoo à mën nga gis ay fans yu la may dara teral la comme nuñ koy waxee mais bariwul pour man li nga ciy liggéey rek loolu ngay fayeeku mhm. lépp looy dugg rek danga nga dugg parce que da ko bëgg mhm. boo ko mënee jàng nga jàng def ko ñu xam ni kat lii sa métier la mais boo ci duggee pour succès ak siiw wala mu am ci dara rek amul sens parce que tey am na ñoo xamante ni yàgg nañu théâtre mhm. ma yàlla ba amuñu ci loo xamante ni satisfaire nan la satisfaire nan mën na satisfaire seen besoin yëpp mhm. kon du da war a dugg ci série rek da nga war a tekki non non mhm. da nga koy dugg parce que passion la luñ la si fay da nga koy jël parce que da ngay xam ne loolu nga si loolu nga mérité loolu nga am voilà mu bañ a nekk dugg parce que damaa bëgg siiw loolu amul sens. siiw buzz bëgg siiw bi du fun quoi comme le font la plupart des filles. siiw bi dafa métti ñoo ngi siiw ba pare. <laughs> Ah, léegi gisa gisatuñu leen ngeen di dugg ci tata yeeg ci kii taxi oto. particulier man damay dugg raps ba tey. man dugg raps. sérieux ah man moom gëj naa ko. ah mais nekkul chaque jour ngay xëy mais boo duggee boo duggee boo duggee ci rap euh, du jaaxal ñi nga bokkal kaa rapide bi. mës naa ci dajal mhm, mës naa ci dajal benn grand. Mhm. mi ngi ànd ak ñaari xale jigéen. ma dugg toog rek mu ne ma waa kii du jaari ma ne ko moom la mu ne ma waa kon da ngay dugg kaa rapide ma ne ko xanaa sa xaas baaxul du oto <laughs> da ngay dem rek ma dem. waaw. dañu arrêté loo yoruñ. donc mhm. ñu ngi sant yàlla quand même mais nekkul tout boo xëyee ngay dugg si taxi di incarné loo xam ne amul mhm. man li ma li ma li may dund naturellement mhm. loolu laay dund fépp aw ma du dul nekkuma chaque jour may xëy dugg taxi te duma arrange nit ki man maa ngi xalaat suba samay projet nu ma ko mën a réaliser mënuma jël lu ma liggéey yëpp def ko ci taxi xalaatuma ko chaque jeune ba nga jël car rapide wala nga jël tata bus du dem surtout cinq bi wax nañ ma métti ligne cinq ah. alors fi ñuy jeexalee mooy seen relation ak ki nga xamante ne moom mooy directeur général bu Pikini je sais que xam naa ñàkkul que ni am na ay maison de production yi leen di contacter yeneen série donc côté boobu tamit ngeen tontu ci euh, est-ce que mën nañu xaarandi à que ngeen dem liggéey ak yeneen label yi fi nekk ak c'est quoi votre relation ak ki nga xamante ni mooy euh, borom Pikini. ah borom Pikini dañ ko sonal de <laughs> tonton Aliou. Mhm. vraiment nit ku baax nit ku simple nit ku modeste. man dama ko rusoon sax dama ko rusoon mais <laughs> léegi dama koy tooñ di ko def lu nekk comprendre nga parce que moom moo wàccee boppam baax na man mënu ma wax si moom lu bëri parce que teguñu benn pression ñu may nañu jàmm suñu même bu dul sax lim ñuy fay dañuy dem di ko wax suñu soxla mu ñu koy fajal man damay dem ne ko tonton Aliou dama bëgg simport sama greffage wala tonton Aliou dañu bëgg paas du ci teg baat day reetaan yéen ay triant ngeen rek jël xaalis jox la loolu yombul rëyul mi ngi dëkk ak ñun nit ñi conseil di ñu jàppale si li ñuy tourné surtout man mi nga xam ne jànguma ko tey bu ma demee ba suñ ma nee action ma dem moom la ak suñu réalisateur franchement man dama koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram famille sénégalaise li mu si bëgg yëpp yàlla na ko si am ak yeneen projet yuy ñëw ñu dem ba di ko dégg fépp fépp fépp si àdduna bi. yeneen maison yi ñu leen di ñu ngi leen di contacter. waaw ñu ngi ñuy contacter l' instant ñun ñoo ngi hmm. <laughs> lu ñu leen mën mënti tegal parce que proposition yi xam naa dina bari. <laughs> waaw. Hmm? <laughs> mais pour le moment vous êtes en contrat ak euh, Pikini. ak Pikini. d' accord d' accord yeewuñu rek. Hmm. xam naa ne moom du leen a yeewu parce que macha allah da ngeen mën seen liggéey Fanta. waaw man tonton Aline wax dëgg yàlla yàgg naa ak moom maa ngi bëgg yàgg ak moom. Mhm. te bu ma ñëwee ba tey dara ñaawul wax dëgg yàlla. Mhm. Eh, lépp loo liggéey dalay fay ba wis la macha allah. Mhm. soxorul ci alalam. te bu fi ñëwee dangay gën a yokk. fii laa commencé donte nag des fois doon naa tourné ci ñeneen ñi. mais ba tey maa fi macha allah parce que bu amoon neneen nu mel du mu ñëwaat. mais tout le temps ci lu mu am daf ma ciy woo di ma ci dugal. maa ngi koy sant daal di ko gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér yeneen projet ñëw incha allah Pikine ñu koy dégg ci kaw a kaw a kaw euh, pour yeneen projet ah ñun de ku ñu woo incha allah dinañ ñëw liggéeyal la mm. ak ku mënti doon ñun boo ñu fayee daal incha allah ñu liggéeyal la donc tënku woo leen ci euh, non non non non mm-hmm. non pour famille sénégalaise la après famille sénégalaise waaw après leneen lu ñëw rek man damay liggéey incha allah d' accord d' accord pare ngeen daal pour def benn carrière bu sore sore ci li nga xamante ni moom waaw bëgg nañ mhm. ma jeexal te du ma leen laaj seen diggante ak Marlo euh, seen borom kër euh, naka ngeen ko gisee tey ban seede ngeen ñu mën a wax ci moom <laughs> moo day jeng <laughs> yàlla nañ yàlla musal ci jëkkër bu mel nii kii mais tayu ko tayu ko nag mhm. mais ku baax la quand même papa mhm. ku baax la macha allah xamante nañ avant famille sénégalaise mu nekk ku baax am euh, amité ci nit sawar ci nit macha allah moom it yàlla na yàlla defal ko jàmm. Mhm. amiin mu gis boppam fu kawee kawe kawe kawe incha allahu rabbi. allahumma amiin euh, ban ci maar. maar loo nit ku baax la. Mhm. nit koo xamante ni dugg si dara vraiment. Mhm. daal jikkoom neex nañu en tout cas. jàng bi rek moo leen moo leen ci nekk waaw jàng bi rek <laughs> xam nga loolu. ni mu joxee bopp soxna Matoor ci sëriñ moom euh, dëggantaal moom nit ku baax la vraiment. Mhm, mhm. nit ku amul benn problème suñu jëkkër ju baax la mais na bàyyi jeng bi tuuti rek. Mhm, na bàyyi jàng bi tuuti en tout cas ñu ngi nuyu Lamine Ndiaye suñu régisseur yàlla na yàlla defal la sonal naa la trop. Lamine sonal naa la. ma équipe technique bi. tey ma li ma mel nii baal leen ma rek. super donc merci beaucoup ci euh, waxtaan bi ça a été vraiment un plaisir. seq ak yéen waxtaan tout le plaisir est pour moi macha allah ñu bàyyi leen ngeen tàggatoo ak seen ay fans parce que tarkalla macha allah fi toll nii yéen a bi fii ci Sénégal fa série famille sénégalaise ah surtout yéen ñaar ñi tàggu leen seen fans yi euh, Fanta. Hmm? fans si lay bëggee. ci ah, Sénégal set am mais kontaan naa trop si fans yi maa ngi leen di kontaane di leen wax ni maa leen raw lu baree baree bari lu ñu bëgg benn bëgg naa leen ko diis hmm. yàlla yàlla leen jàmm incha Alima. waaw ñu ngi leen di kontaane bu baax di leen wax ni bëgg boo leen ñu bëgg rek ñun ñoo leen raw amuñu yu dul yéen di leen continuer di ñu jàppale di ñu soutenir di seetaan famille sénégalaise surprise yaa ngi ñëw nag en tout cas ñu tamit bëgg nañ leen ndax yéen a tax ñu toog fii. super en tout cas merci kontaan nañu bu baax a baax vous êtes des actrices euh, pétries de talent. Ah, yàlla yàlla sàmm leen. Euh, moom <laughs> ni ngeen ma nekkee. <laughs> alors gis ngeen euh, Fanta Seydi Diary moo nekk fi mu nii di Roubaix donc ñu ngi ci kër gi les familles sénégalaises. Mhm. tey ñoom la ñu seet ci ci Sénégal 7 donc damay bàyyi Fifita mu daal di continuer waxtaan bi daal di doxal ndax am na ñeneen ñoo xamante ni ngi fi def leen war a jël tey nee naa la c'est inédit pour la première fois donc ñu defal leen un documentaire sur li nga xamante ne mooy la sénégalaise. Fifita, à toi l'antenne.